ci mën profité sax pour corriger waat beneen incohérence presque écologique parce que euh, technopole ak ni mu duggee ci biir géejawaay euh, tali précole bi ñëw séparé presque de façon nette Pikine ak géejawaay te ba léegi technopole nga xam ne euh, lien ak géejawaay c'est c'est c'est presque physique ñu boole ko ci Pikine pour moi, loolu tamit vraiment incohérence la bu nga xam ne war nañ ko mën

pour dénoncer ça waaw comme on le dit Pikine instant bi dafa commencé di subir des agressions yoo xamante ni kenn xamul nu mu parce que Pikine instant bi commencé na perdre ay communes yi nga xamante ni moom moo nekkoon si si si si ville Pikine Pikine instant bi ñu parti da nga xamante ni moom mooy parti Djiddah Thiaroye Kaw jël nañ ko ñu ko ñu bëgg ko Guédiawaye Dalifort aussi jël nañ ko ñu bëgg ko rattaché fi nga xam ne moom mooy Dakar Yeumbeul aussi la même chose tey ji ñu toogaat benn jour déclaration ñëw ñu ne dañuy jëlaat technopole bi ñu jël ko ñu rattaché ko waat Guédiawaye

Ben affaire bi nga xamanteni ne ni kenn xamul fum ko jëlee maire ville Pikine bi nga xamanteni ne moom Abdoulaye Timbo nopi ken degul ay kàddoom donc mën nañ wax ni autorité Pikine c'est c' des complices nga xamanteni ñom ñoo waral tay ji Aliou Sall yeb parce que dañoo wax bukki bu la kat

muy Afrique muy Sénégal muy foo mënti doon kenn moo ko mën a def si àdduna muy muy muy jeunesse bi te jeunesse bi ñu ngi nii suñu ginnaaw ñu ngi nii taxaw sol seen tiset pour wane seen naqar li nga xamante ne moom mooy décision ak déclaration bi nga xam ne moom la ñu ko bëgg jël te bu dakkul dinañ organiser ay marche passer à une étape supérieure non ñun soxlawuñ benn njiitu Pikine duñu woo parce que à chaque fois bu la njiitu Pikine woowee ay calmants jox ñu li ñu wax mooy lan bugguñu ko te bugguñu ko te du fi amee du fi amee loolu mooy wax ji